bismillahi rahmaani rahim salaatu wa salaam ala nabil karim mbokk yi ñoo ngi fas yéene ñëwaat ak yéen ci suñu beneen numéro fii ci Tawfekh International ci li nga xam ne dafa jëm nag ci loo xam ne ay information pratique la ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu manasikul aj boo ko xoolee ay ponk la yooyu nag ay piliers la di pèlerinage nga xam ne waxoon nañ ko ci suñu biir numéro yi weesu ñeent yi nga xam ne moom mooy ponk yi nga xam ne mënut a ñàkk bi nga xam ne moo ci jiitu mooy yéene ci bërëb ba nga war a yéene ndax ay muwaqit la nga xam ne noonu nga xam ne ay su ko suñu borom euh, defee yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam jàngalee ko noonu muy ay bërëb yoo xam ne ci ponk yi nga xam ne mooy ponk aj fokk nga defee yéene fa nga ko war a defee boo ci jógee teew gi ngay teew arafa loolu ci ponk yi la tawaaf ifaada gi ngay def dafay dugg ci ponk yi muy ñett ko defee safa ak marwa bi nga xam ne mu ngay def ci ak boo ci mën a moo xam aj goo xam ne ifraat la muy aj kese wala tamatu muy boo xam ne dañ ko def ba noppi nga séparé ko ak aj wala xiraan nga xam ne da leen lëkkale muy am yéene ñëw ci aj goo xam ne da ko lëkkale ak umra jàppal ne ñeent yooyu mooy li nga xam ne munu cee ñàkk kii dañ ko koy defal bu daf koy def bu ñëwee def tawaf xuddoom bu defee safa ak marwa bu dellu see def tawaf aada du ko def waaye jàpp ne daal li nga xam ne mooy ponk yi ci aj gi ñeent yooyu la boo yéenee fa nga war a yéenee sa benn ponk dugg na boo teewee arafa ci bisu arafa ci juróom ñeenteelu fan bi sa ñaareelu ponk dugg na nga def sa tawaafu ifaada ci bisu tabaski bi wala nga def ko ci yeneen bis yi nga xam ne suñu borom dogal na jàppandi am na ndax am na ñoo xam ne mun nañ ko def ci yeneen bis yi nga xam ne bokkul ak bisu tabaski bi ci nga xam ne nga ko def kon ñeenti ponk yi moo nekk noonu sa ak marwa bi ngay def tawaaf gi koy def yéene fa nga war a yéene ci miqaat yi nga xam ne moom moo la moom nga jekku bu dee Madina nga jóge sa miqaat mooy nekk biir àll yi kon nag bu ñuy ñëw ci yi nga xam ne mooy farata yi nga xam ne moom mooy farata ci aj gi bi ci jiitu maanaam armal bi nga xam ne moom la suñu borom def nga yéene ko mu yére yi ngay armale loolu day farata ci aj gi teew gi ngay teew arafa euh, ba ni nga xam ne jant bi sonn loolu tamit dafa bokk ci farata yi Euh, nekk gi ngay nekk mu Musdalifa ci nekkin bi ba ginnaaw bis yi ne dugg na muy bisu rey bi euh, ak taxaw gi nga xam ne nekk nga ko ginnaaw bi nga sànnee ca jamratu ba teew gi ngay teew minna ci ayama tashriq loolu tamit dafa bokk ci euh, farata ci aj gi sànni jamra tamit dafay dugg ci yi nga xam ne mooy farata ji Euh, mooy jamratu aqaba ak ñetti jamra yi nga xam ne fukki fan bi fukki fan benn ak fukki fan ak ñaar moom ngay sànni muy ñetti jamra yi jamra bu ndaw jamra bu digg bi ak jamratu ba jamra yooyu yëpp nag jàppal ne loolu ci farata yi la bokk mbokk yi am na watu goo xam ne nag boo paree ci sa aj watu nag la wax yenn saa yi suñu yenn mbokk yi xaw a am nu tuuti ñu dagge seen karaw waaye watu ngay def dafa bokk ci ci aj gi dugal nañ ci ci borom xam-xam yi masala niñ ko indee ci juróom yi nga xam ne mooy juróom-ñaari farata ci aj gi mooy tawaaf gi nga xam ne boo ko defee mooy tawaafu tàggatoo bi nga xam ne ginnaaw pare nga ci aj gi yaa ngi waajal pour ñibbi def ko ba noppi bañ faa delluwaat loolu mooy yi nga xam ne moom la bëggoon indi ci suñu numéro bi nga xam ne mooy numéro information pratique manasikul aj mooy lan mooy farata ci aj gi kon juróom-ñaar yooyu ñu bamtu ko mu gaaw rek mooy sol gi ngay sol sa yére armal yi nga xam ne moom nga fas yéene yéene dugg ci aj gi teew gi ngay teew arafa ba jant bi soow teew gi ngay teew fa nekk fa ba bisu rey bi dugg teew gi ngay teew ci ayama tashriq muy bisu noppaloog bisu jaamu yàlla yooyu teew gi ngay teew fa nga xam ne mooy minna jànni say jamra yi nga xam ne ci bis yooyu nga teew ci Mina mooy ginnaaw jamratu ba yeneen jamra yi ngay sànni watu gi ngay watu bu dee góor comme jigéen bu dee jigéen waxoon nañ ne li ngay def mooy dagg sa karaw windeel ko ci sa baaraam ba mu wër sa baaraam nga dagg ko ak tawaaf gi nga xam ne mooy tawaafu tàggoo gi ngay def kon mbokk yi ginnaaw farate yi ñu ñëw ci yi nga xam ne moom mooy sunna yi euh, te muy loo xam ne euh, dara warta tax nit bàyyi ko ndax noonu lañu ko yonte al muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma jàngale mooy sangu gi ngay sangu balaa ngay dugg ci sa yére armal euh, ni nga xam ne noonu nga koy war a defee ak ñaar yi nga xam ne moo la war a topp ndax war mat ñetti ñaar lay doon izar ak rida boo ko defee dafa war a nekk lu weex mooy li nga xam ne mooy mbokk yi li nga xam ne moom yàlla dogal na nga def ko sangu gi sol say iram mu nekk yére yu weex bu dee bu dee jigéen nag xamal ne foofu yére yoo mën a am moo xam couleur bu mun doon ak dar couleur bu mun doon na verte na jaune waaye daal jigéen moom may nañ ko mu sol armal ak plusieurs couleurs couleur bu mu ci mën a doon mbokk yi xamal ne ci biir sunna yooyu talbiya bi nga xam ne moom ngay def euh, bokk na ci li nga xam ne dafa bokk ci sunna yi moom mooy li nga xam ne moo lay dugal ci aj gi mbokk yi ginnaaw bi nga xamee ne dellu gi nga xam ne yaa ngi koy delluwaat mun na euh, ginnaaw arafa dellu googu tamit dafa nekk ci sunna parce que bul fàtte ne yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ne jóge na arafa fi nga xam ne foofu la nekk léegi la hôtel yi yaatu muy funduux yeeg sakkaan yi waaye bi nga xamee ne jóge na arafa sànni jamratu aqaba miin na googu la nekk kon loolu sunna la ci ki nga xam ne yàlla dogal na ñëw néew na def ci aj gi mbokk yi fóon gi nga xam ne nag euh, ñoo ngi koy fóon kaaba tamit sunna la waaye bu fekkee ne tamit nekk na loo xam ne ci bis bi nga xam ne yàlla dogal na yaa ngi nekk ci def sa tawaaf ifaada mu jafe jàppal ne sunna la waaye boo ko mënee def nga def ko mbokk yi bokk na tamit ci li ñuy wax ittiba mbokk yi mooy dindi gi nga xam ne moom ngay dindi sa loxo ndeyjoor mbokk yi sa loxo ndeyjoor dindi gi nga koy dindi yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ñi nga xam ne ànd nañoo moom mooy muhajiriin yi ak waa ansaar nga xam ne ñoom ñi nga xam ne ñoo jóge woon màkka dem madina ànd ak yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne ñoom lañ fekk muy waa ansaar yi ñooñu bi ñu ñëwee def leen wax ne leen na ngeen dindi seen loxo ndeyjoor bu ko defee bu ñuy war kaaba waa màkka bu ñuy seetaan si ne waa madinaa ngi ñëw dinañ xam ne tumuranke wuñu fa nga xam ne foofu lañ jóge muy madinatul munawara loolu ci biir sunna yi la mbokk yi bu ko defee euh, ñetti tuur yi nga xam ne mooy njëkk yi nga koy def mbokk yi na nga xam ne da nga war a def raamul rijaal loolu tamit ci sunna yi la maanaam ñetti tuur yi ngay njëkk a def booy sa def sa tawaafu xudduum ñett yooyu jéego yi di dëgër muy raamul rijaal dëgëral say jéego loolu tamit ci sunna la mbokk yi loolu lañ leen doon indil ci li nga xam ne moom moom la yàlla dogal nit ñi war koo jàpp ñi ñuy topp ci taw Tawfekh Production Internationale bu ko defee ñu xam ne loolu dafa jëm ci wàllu sunna yi li nga xam ne tamit mooy tawaafu xuddoom ñi nga xam ne dañu def euh, xiiraan ak ñi def ifraat nañu xam ne tamit si sunna la bokk nga ñëw def sa tawaaf googu nga xam ne mooy sa tawaaf nuyu kaaba ndax boo nee rek tawaaf gi du jël sama tawaafu aj walla mu jël yow mii def xiraan sa tawaafu aj ak umra ndax boo jógee arafa da ngay def sa tawaafu ifaada comme ni ko ñeneen ñi di defee kon nag jàppal ne loolu sunna la ci kaw nga jug nga def sa tawaafu xudóom mbokk yi yi nga xam ne nag moom la ñuy teree boo xasee ba armal loolu ñi ñuy topp ci taw feex Production dañuy bëgg numéro bi nga xam ne information pratique maanaam sikul aj la boo ci ñëwee xamal ne tere nañ la sa weddi waaj a dagg nga dagg ko loolu lu ñuy tere la boo ixramee ba noppi mbokk yi lépp loo xam ne luy dagg ci li nekk ci yow la muy moo xam karaw yi sax ci sa kanaq muy karaw yi sax sax sa pokotaan lenn lum ci mën a doon bul ko tàmm sangu ba jàpp ne ci sa biir sangu ci sa ixraam ndax may nañ la nga sangoo sabon bu abul parfum wala moom alcool waaye may ñu la benn yoon boo tàmmee di wat yooyu nga xam ne mooy karaw pokotaan wala karawu kanam may ñu la nga wat ci lenn mbokk yi may ñu la nax mbaxana nga gis ko ne ah man de bu ma jógee ci aj gi nii daanaka mbaxane mii moom dina jekk lool bu ma demee ci dëkk ba mbaxana may ñu la benn yoon nga xool ko fekk ko fenn bëgg koo jënd di ko natt mbokk yi may ñu la benn yoon ngay tëdd nga ne sama armal bi naa ko wékk fële sol yére loolu moom boo xasee ba armal mbokk yi loolu lu ñu lay tere la parfum bu mu mun a doon boo xasee ba ihram mbokk yi loolu lu ñu lay tere la mbokk yi lépp loo xam ne luy gan la masala mu nekk ci benn acclimatation boo xam ne soxna si jàpp na ne ay loxoom a ngi fett may ñu ko benn yoon mu sol ay gan mbokk yi niqaab dafay loo xam ne soxna si dafay muur kanamam loolu tamit may ñu ko soxna si mu def ko ci biir bu xasee ba yéene mbokk yi ba léegi ci biir tere yi lépp loo xam ne luy dox la di mala may ñu la benn yoon boo nekk ci sa ihram nga rey ko mbokk yi Euh, may nañ la tamit euh, may ñu la benn yoon nga ànd ak sa soxna même bu dee sax da nga sànni sa jamratu ak ba ba noppi may ñu la benn yoon ci li ñu tere nga jaxasoo ak sa soxna mbokk yi loolu dafa bokk ci li nga xam ne li ñuy tëje yi nga xam ne moom la ñu tere mbokk yi koo xemmeem ak loo ko xemmeem xemmeem mbokk yi may ñu la benn yoon ngay dox di dox ci ay mbiru maanaam kii kat dama koy labat wala dama ko war a takk may ñu la ko benn yoon mbokk yi may ñu la benn yoon nga nekk ci sa ihram nga woote Sénégal nga ne soxna si ma bëggoon kat nañ ma ko may ci waxtu woowu loolu mbokk yi li nga xam ne bokk na ci li nga xam ne moom lañ lay tere la muy maanaam ak takk daal boo xasee ba dugg ci aj gi ba keroog aj gi di jeex may ñu benn yoon même soxna si bu fa nekkul ñu ne maanaam soxna sëñ bi may nañ ko soxna ndax mun ngaa am kenn koo xemmeem fekk am ñu koy song nga ne man balaa maa jóge ci aj gi balaa maa dellu nañ ma ko may loolu mbokk yi lu njey tere la ci aj gi mbokk yi ñëwoon nañ ci suñu biir numéro yi ci lu am solo ndax doo dem di xool gàtt bi ci at yu mu toll war a weer yi mu toll waaye li nga xam ne ne moo jëm ci li nit war a def bu fekkee ne tànn na ifrat wala mu tànn xiraan wala mu tànn tamatu li nga xam ne moo aju ci moom mooy gàtt bi nga xam ne hadd lay doon ci moom te bu dee xar la waxoon nañ ko ci suñu numéro yu génn mooy juróom benn weer waru ko yées xar mu am juróomi weer du baax pour hadd yu xaa gile bu dee da nga am euh, bëy boo xam ne am na lu yées benn at du loo xam ne lu hadd la bu dee tamit da nga am nag boo xam ne lu ñuy bokk la mu am lu yées ñaari at loolu du baax pour hadiyu bu dee tamit giléem bi dafa yées juróomi at loolu tamit waxoon nañ ko suñu numéro yu weesu yi mbokk yi loolu lañ leen indiloon ci farate yi nga xam ne moo aju ci wàllu aj gi ak ponk yi ak sunna yi ñoo ngi leen di wax ne yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp di ñaanal kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo séq uh, Tawfekh Production ci contribution bu am solo bi ñuy defal duyufu rahmaan yi ndax ñooñu di ganu yàlla lu leen nit defal suñu borom a koy fay di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di leen dox dig daje ci suñu yeneen numéro ci manasikul aj fii ci Tawfekh Production labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk